réew mi hmm. pourquoi pas ñu koy laaj lu ne kenn du ko saaga ndey yaayam bokkut hmm. kenn du ko saaga baay baayam bokkut hmm. mais en tant que Ousmane politicien bu mag ba waxkat bi mu ngi nii maa ngi je maa ngi man jeeg bi ok ok euh, ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna aussi nekk foofu fi nga xam ne mooy assemblée nationale du député nee na Ousmane Sonko bu mu ñëwagum nañ bàyyi bañ régler sart yi ba pare ban jàngat nga am ci lu Guy wax dafa torox Ah guy gu mag gi kenn mënalul dara dafa torox Abdou. Hmm. Abdou Guy Marius Sagna dox naa doxa doxa doxa doxa dox avant ñu koy fal député hmm. mais yéen ba yéen Sénégal Guy Marius Sagna dox na ba yor soble dox na ba yor soble journaliste yi daw topp ko mu mel ni dangin mu mel ni bonobo torturer réew mi jaxase réew mi hmm. indi benn xeen boo xam ni ñun ñii juddoo du benn jàmbaar lan la def luñ ne est-ce kan mooy jàmbaar bi mhm. Macky Sall ba ngay ñëw gis nga fi nga jaar yëpp mhm. nee naa la jàmbaar baa ngoogu Sall ngaari lam toor ceddo ko li yaabe ceddo mbeju ganna mhm. fu ma romb gis lu mu def jàmbaar baa ngoogu gi Mari Sagna dafa stupide du nit léegi ba mu amee xaalis foo ko gis mu taxawaalu di yuuxu mais est-ce que Guy Marius bañ ko fay léegi gisoo ko ni mu suppi ko xam lan la doon sol melikaan dama ñëw ba ci Guy Marius Sagna xool. Mhm. garaam bu bom bu ndaw muy melikaan léegi. Mhm. mais yow Juma Jeng Jaxate nga koy rey goro bi mi ngi sañ sañse barki démb damaa sol mauve. lan nga <laughs> mu sol mauve mais honorable lan moo ci kii ba moom moo. mais moom mooy goro. waaw te day ñaw. waaw lii sax publicité la di. d'accord Juma Jeng Jaxate xaaral ma noppi sax. <laughs> moo ko jox la mu sol hmm. Guy Marius ñaa ngi fayeeku almost five million hmm. da nga ko gisati mu dox di sonn foo ko gisati rek wax ma rek foo gisati Guy Marius Sagna mu amoon am na ko euh, ki mu doon xeexal nekk na président ah wala ci ah. moom président léegi nag ki mu doon xeexal waa di liggéey déedéet dafa war a dafa war a jóg di dem fi mu doon dem ñu xam ni kii is real that nigga is not real mm-hmm. poosam diis na Mm-hmm. féex na gis nga këram bi ñu wane. Mm-hmm. ak kër ñoom Guy Marius Sagna ganu wane ca ca Casamance foofu la waroon a def la mu def fii. Mm-hmm. bu nu faloo fàtte Casamance. te Casamance dafa nekk suuf soo xam ne yàlla def ko defar. mu nekk mu ñoŋ neex. lu tee Guy Marius Sagna dajale xale yi yëpp bayi ak rappeur yu perte yi leen di topp ñu bayi. suuf soo su nekk Casamance ma romb yaatu gi mu yaat hmm. mais Guy Marius Sagna Guy lii muy def megul sens. ok ba mu fayee ko laa la wax gisatoo ko Mbuur. Mhm. gisatoo ko Thiès gisatoo ko Tamba. pourtant ñi jooy seen suuf yee ngi koy hmm. jooy. maanaam yow maanaam ban ban jàngat nga ci am da nga yaakaar kenn dafa commencé kii bàyyi bàyyi seen askanu Sénégal. na bàyyi. wor leen comme ni leen Sonko woree xale yi. Sonko nan la leen waree honorable nan la xale yi. <laughs> Sonko naka la leen waree. ah xale yi day. waaw surtout ambulant yi dama leen doon wax ni leen def leen ndànk. dañ fa ñëw après. waaw waaw mais. li li guy may saaña wax en tant que député ne Ousmane Sonko toogal ba ñu réglé assemblée. moom na toog député CEDEAO lañ ko def. Mhm. mu yor bureau mhm. nekk euh, euh, euh, am na luñ ko falaat ca biir assemblée ba ndax man faalew ma ko. Mhm. du ma ko toppatoo ndax baaxut. dafa soxor bëggul ñu muy liggéeyal nawloowu leen pourtant ñooñu sénégalais lan ci dëkk bi lan dëkk di mm-hmm. te ay cas social lan de parce que képp ku soxla ci député yi ngay dem mm-hmm. Guy Marius Sagna mm-hmm. euh, li ma la mën a wax mooy xolam baaxul il faut que sénégalais bàyyi xel ci li may wax baaxul boppam la yéene ok yéenewuñu seeni député ñoom suppléants ya da ngay jooy bëgguñu ñu tas ensemble bi. Mhm. man nañ ko tas tey. who care. ah gars yi nee nañ def. hey man Coura Macky. te boobaa ñu bari ñu la ci xalaat. man bi ko tasee ku mel ne ay Coura Macky dañ koy dégg dootul nekkati député ku demee noonu. eh mais man yow Amérique laa dëkk. ok nationalité américain laa yor. kon ñu tas assemblée ak ñu ñàkk. Oh non sama yoon new ci damay xalaat nag ñi may liggéeyandoor. ok. ñu may liggéeyandoor bàyyi naa leen xel lool mhm. bu ma sañoon mhm. duñ ko tas ndax fii lañ dëkk ci dëkk bi demunu fenn mhm. xeex ba doon député su ma sañoon dañ koy continuer man buñ may génnee sax man ñu génnee ma ma ñibbi mais ñoom ñu continuer muy muy opposition bi di pouvoir ndax yéene naa leen ko samay nawle leen ñu may liggéeyal te ñu bari am na ñu yaakaar ci ensemble ci lañuy dimbalee doomu aadama yi yéenewu leen ko Euh, honorable loolu am na solo bu baax a baax mais rek dañoon doon xaar maanaam débat d'orientation budgétaire bi pour ñu def ko mhm. ñu mujj ko annulé lan moo waral annulation bi euh, li ko waral mooy waaw coow li bari na wax ji bari na Abdou keroog biir assemblée biir assemblée mhm. euh, Cheikh Diba xawma Cheikh mhm. il faut ñu toog ñoom kilifa yi ñu waxtaan mm. pour ñu xool naka la ñuy def. Mhm. ba Ousmane Sonko ñëw Ousmane Sonko saa yu ñu koy woyoo ci lu baax lu tax du du ko assumer mu ñëw. ah moom nee na bëgg saa yu waxee musiba. waaw sunu ko xoolal Mame Mbaye na ko ñëwut. Mhm. Euh, Mamour Diallo woo na ko ñëwut. Mhm. aji saar woo na ko ñëwut waaye ba muy dem suwut boo te kenn yëgu ko bi li indi lépp. na respecté sénégalais yi. affaire ensemble affaire sénégalais la. ñun ñëpp. ñun ñëpp fa ne. ñëpp lañ fa toogal. day ñëw yéen ñëpp journaliste yëpp tiim ko. Mhm. mu wax li mu nar ak sénégalais loolu ci yoonu Coura Macky. ah na comme sàrt yi maanaam bu ñëwee assemblée xuloo bi mu naan am xeex bi mu naan loolu yëpp. dama lay wax leen na benn xeex du fa am. xeex du am nag kenn xeexut nag. ah non non non daañu yow. jàppoo xëccoo ma fa nekkul lay am. yow ñooñu rek. suma ma fa nekkul la ñuy siisu. boo fa nekk dañ naan ooy ma leen di def taatu neen ñoom ñëpp man ma xam li may wax ñu bëgg ma leen di. tudd euh, li nga xam ne mooy assemblée coow lu bare yow doo fa nekk. oh non. mais boo keroog ba police yi feesee fa dell. waaw. mais dama xëy yow mais ñuy yan ma àddina bi yow. ndax li nga fa fekkewul. non dama yeewu feebar. ok. dama yeewu feebar mais bii nii. Hmm. nañu préparé. ak maa pare ak maa pare. kon oh. la Ousmane Sonko il faut mu ñëw pour ñi ko fal du man. ok man faluma Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñëw ak ñëwul I don't mais sénégalais yi. Mm ay kilifa fi ay magum jëm yu yàgg ci réew mi. Mhm. il faut que ñëw wax leen fan la jëme réew mi. ok waa loolu lu ci yoonu député yi. pourtant moom député la moom li muy wax ñun suñu yoon newu ci bu paree mhm. bu waxee ak ba pare mhm. ñun ci la ñuy doog a poser question mais Ousmane na affronté ñëw wax ak sénégalais yi honorable ñu ko préparé la bu ñëwee dina ah man damay sol robe bu rouge loolu damay sol robe bu rouge ok damay laaj Ousmane dama am pour poser ko question mais c'est simple ku fa ñëw poser nañ la question d' accord euh, honorable loolu am na solo bu baax a baax. Hmm. mais dañuy desandi rek ci lu Ousmane Sonko bëgg moom nee na la 15 bi incha